auzu billahi mina seytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Naby Vision yàlla sunu borom noo ngi lay ñaan nga mabal ñu président Macky Sall ak gouvernement am yàlla sunu borom noo ngi lay ñaan nga daaneel leen ñu Macky Sall ak ak gouvernement am sunu borom noo ngi lay ñaan nga daaneel leen ñu Macky Sall ak justice am sunu borom noo ngi lay ñaan ci barkeb kaaru gu tedd gi nga daaneelal ñu Macky Sall ak ministre de l'intérieur am sunu borom noo ngi lay ñaan ci barkeb kaaru gu tedd gi nga alagal kan ñu Macky Sall ak mboolem ko mbokk gouvernement suñu borom noo ngi lay ñaan ci barke rasulullah suñu borom noo ngi lay ñaan ci barke kaaba bu tëdd bi yalla na nga mabbu président Macky Sall ak gouvernement suñu borom dimbali ñu ci Macky Sall suñu borom suturaal ñu ci Macky Sall suñu borom dimbali ñu ci Macky Sall suñu borom dimbali ñu ci Macky Sall yaa ñu dig ni bërëb bii ñaanu kay la Macky Sall yalla na nga ko yew yalla na nga ko tak yalla na nga ko teunk yalla na nga ko alak yalla na nga ko mabbu yàlla na nga xawi suturaam yàlla na nga xawi yàlla na nga ay pexem yàlla na nga taxawal Sénégal ak waa senegal ak képp ku bëgg Sénégal yàlla na nga taxawal ndawi Sénégal yàlla na nga taxawal Ousmane Sonko yàlla na nga taxawal Ousmane Sonko suñu borom maa ngi lay ñaan nga àggale yéene Sidi Lamine Niass sunu borom noo ngi lay ñaan nga àggale yéene Imam Alioune Badara ndaw suñu borom noo lay ñaan nga yëggale yéene ndaw ñu dee ñëpp ngir Sénégal ak waa Sénégal sunu borom ndaw ñu bari faatu nañ Sénégal ci ay caaxaan képp ak njiit yu dëng ak njiit yu jubadi ak njiit yu bon ak njiit yu ñàkk sutura ak njiit yu ñàkk teggin ak kilifa yi ñuy seetaan sunu borom yow rek la ñu dese yow rek la ñu am yow rek la ñu dese yow rek la am sunu borom noo ngi lay ñaan nga suturaal mi suñu borom ñoo lay ñaan nga taxaw ñu suñu borom ñoo lay ñaan nga yiir ñu ànd sutural bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam barkab kaaba gi barkab kaaba gu tëdd gi suñu borom bërëb yi bërëbu yaakaar la yow rek lañ fi yaakaar yow rek lañ fi ñoo ngi lay ñaan nga sutural suñu borom ñoo ngi lay ñaan nga sutural suñu borom ñoo ngi lay ñaan nga sutural suñu borom ñoo ngi lay ñaan nga sutural suñu borom ñoo ngi lay ñaan nga sutural fajal suñu ak ak sunu borom ñoo ngi lay ñaan nga teggul ñu fitna ju ñu Macky Sall teg sunu borom ñoo ngi lay ñaan nga teggul ñu fitna ju ñu Macky Sall teg sunu borom ñoo ngi lay ñaan nga teggul ñu fitna jii ñu Macky Sall teg sunu borom teggul ñu Macky Sall ak gouvernement am sànnil ñu leen ca àll ba sunu borom gépp sonn nañu góor yëpp jaaxle nañu góor yëpp tëdd nañu xaadisu alxuraan yëpp nga ci seen i xott tëdd kilifa diine yëpp nga ci seeni i biir kër toog kenn ñi mee ci la génn kenn ñi mee wax ñëpp jaaxle nañu yow rek la ñu am yow rek la ñu dese ñu ngi lay ñaan ci barkeem maqaama Rasulullah ñu ngi lay ñaan ci barkeem maqaama ñu ngi lay ñaan ci barkeem kaaba ko tedd gii suñu nga nangu ñu suñu ñaan gi taxawalal Sénégal yëkkati Sénégal yëkkati Ousmane Sonko ba ca kaw teg ko ci digg Sénégal mu àggale yéene ndaw ñi ndaw ñi seen yéene yëpp mat sëkk mottiliku yaakaar taxaw ba faw ba faw ba faw bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam suñu borom noo ngi lay ñaan nga nungul ñu suñu ñaan gi barkab xaadimal Mustafa suñu borom noo ngi lay ñaan nga nungul ñu suñu ñaan gi barkab xaadimal Mustafa suñu borom noo ngi lay ñaan nga nungul ñu suñu ñaan gi barkab xaadimal Mustafa alhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin